macha allah fentuwuma gaal gi ba te yaa ko teg euh, géejawaay wala gaal gi dafay jóg. waaw. mais yow gis nga gis mais xanaa gisoo may lu ma def esat non non non mais xam nga tey jii boo xoolee boo xoolee nit dangay ngay ñun yoruñu ay ay lii nu mu tudd ay karkaas waaw ñun dañuy màgg waaw dañuy ñun màgg ay xale nañ dañuy màgg lamb lu mu gën a dem ma gën a màgg loolu si nit si si nit la si nit ay coono non man yooyu ko naan mbaal gi da nga gaal gi dafa mel ni góy gi yéeg na mu ngi si kalaf asuli ah na waa yéeg na non yéeg mooy mooy instant mooy uppa bi un grand frère yaay uppa bi instant bi la yaa gaal gi asal gaal gi nag non gaal gi foofu gaal gi ah non gaal ga kay du fa a jóg ah, gaal ga dama ko fay yeew ba mu ne ndoj amaare kat waaw kii defar kaabal gi sax. Ndiass Thiam ngan dak la ma jox. teg feneen dina am la choisir. nee na ma ngan dak kaabal la ma jox kaabal gi nee na ma daa dotta daa dotta gaal gi. boppa gaal ak gaal yëpp la dott. Hmm? lan moo tax nga choisir géejawaay rek. non mais maanaam sama gaal gi mu ngi foofu rungaguma ko. say man làmb ji bu ma waxee te yàlla rek tax ji maa fi ëpp adversaire man ñëpp laay bëreel. amuma xarit kenn xaritawuma kenn laamu yi naw ma mm. ñëpp laay ba damay liggéey de fontuma waaw time is money liggéey rek waaw. mais instant bi fan fan nga jëm comme que bëri nga ak guy gi daan ko mm. ba léegi nee nga <laughs> dangaa seet sa gaal dëgg la mais instant foo jëm man fu ma jëm mm. xanaa ma wàcc suuf suñu su suuf. so <laughs> néeg yàlla laa jëm sama néeg yàlla laa jëm. ci làmb kan mooy sa adversaire. sama non man moom staff bi lu ñu wax rek man maa ngi seen ginaaw waaw ku ma bu boole rek dina neex. mais da ngay génn géej waay wala da dem. non ah da ngay dem ah, Pikine foo jëm. fu mu non gaal gi non gaal il faut ma dem géejawaay dotta ko sëñ bi man kaa yóbbu yaraax saraat ko fa mu newoon. mais géejawaay ñi fa nekk dama wax ji mhm. ñi ah loolu man aw si tontu ne wax dëgg yàlla ndax man moom kenn waxuma sama combat ak Sa Thiès. ji jeexee mooy adversaire non man moom loolu wax dëgg yàlla aw ma si problème dafa amoo ci parole. non loolu ay saf bi la ñoom ñoo yor loolu. man sam man daan naan ma demal entraîné na ji ma dem entraîné na ji. waaw loolu lañ may wax demal entraîné ma dem entraîné aw ma si dara moom laa lay expliqué ñoom lu ñu wax rek d' accord naa ñoom mais man aw ma problème ay adversaire rek kii laa war a bëreel nangam nangam woon expliqué naa la ko